zikkar su ànd ak xaal borom baatu wurus yi zikkar su neex ba jéggi dayo ci waajal gàmmuk Tayba Ñaseen 2022 ay waay rajo alfayda ak alfayda tv fa yéen a bégal mboolem ñuy dund zikkar tudd yàlla alxaaji libaas mbay borom waajal gàmmuk Tayba Ñaseen alxaaji libaas mbay ca animation ba ca dalal ba ca xarañ ga ca pasteef ga alxaaji libaas mbay fa yéen a dalal mboolem kuy zikkarkat te aaju ci xadara bu bu Medina Baye li ko tàmbalee àllarba ñaari fan ci weeru février bu 17h jotee jàpp 19h noonu la koy continuer bët bu yàlla sàkk ba dimanche fukki fan ak ñett ci weeru février mboolem kuy zikarkat am nga fi place mboolem kuy tudd yàlla fañ la fiy dalal ku nekk ak kala neex ku nekk ak lala saf yéen ñi zikaru Medina bàyyi saf yéen ñi zikaru Medina Baye di daaneel xanaa taalibe Baye ñesi bu leen ko kenn nettali en direct ci rajo Alfayda ak Alfayda TV. àllarba bi 9 février 2022. bu 17h jotee. jàpp 19 heures ñuy dalal di Cissé ak équipe bu muy àndal la alxaaji libaas mbay yóbbu na leen ca gàmmu ga te gàmmu ga yegg seegut lépp ngir bëggal leen rajo alfayda télévision alfayda mooy ñaar yi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar ci dund si kar su meex ay waajal gàmmu tey ba ña seem du fenn fii la alfayda alxaaji libaas mbay kenn du yéen